ah waaw kii bu ngeen ko gisee xam ngeen ni am na ñoo yow taxoo waaw waaye fii bu ma ko andiwul loi bi ma war a wàcce ñoom duñ ko def waaw moo tax ma andi ko waaw eh, Michael Michael wàccal ci suuf quoi ci suuf laa la wax <laughs> kii moo am droit yëg ci kaw Ndiaye je suis désolé mais mënuma wàcc ci suuf ah wii parce que sama dàll yi duma ko teg ci kaw basan bi te bugguma toog ci basan bi waa baax alors je reste waa baax la yow moom say mbir dinaa ko lijjanti kon kenn xamul gan xeet nga kenn xamul gan xeet nga. waaw léegi nag lii bu ngeen ko gisee xam ne jàmm am na waaw parce que man bu ngeen xoolee xam ne ni ma bégee nii dañ naa koo bég waaw réunion bi nag kenn waralu ko ku dul ah, sama gan gii xam ngeen kii bu ngeen ko gisee macha allah saa fa saa saa fa pas saa xam ngeen jógewu Sénégal sax waaw léegi te man damaa jëm mag. moo tax ma andi ko ci kër gi waaw ma bëgg mu may seereel intérieur bi ak extérieur bi ak ak ak defandanaar xam ma nan na ko nu ngeen ko ci sentira daal dégg waaw léegi euh, moom Ndour laay gën a wax parce que xam nga ko Ndour kii lu mu wax maa ko wax loo lu mu def maa ko def loo ku mu xool maa ko xool loo dégg ngeen na ah, leneen li yéen jigéen ñi

yow lan la ca fett fett tooyo waaye dimbali mu nga am tooyo góor maa yem ñaar mu neex na mu naqaree kenn la fi jiitewu man man du ma jiite du ma nekk ci kër gi fanweeri at kii ñëw fi amagu fi sax lu dul ña euh, yow yow man lu la dal je sais yow tu es fou quoi non Ndiaye yow yow da bëgg ñu jël jigéen teg ko suñu kaw mu ñuy jiite ñun kilifa yu toll ni ñun

yow bañ ne ko dama laa supprimer si la supprimer dans la maison yow Ndour waaw léegi nag loi bi loolu la woon waaw ku mu neex nga ànd ci ku mu neexul nga génn kër gaa yoon waa ngi nii gis nga ubbil naa la ko porte baa nga ne seen porte ba ne. man bañ ma li wax waaw man bañ ma li nga wax de. waaw man d'accord naa si yow. kon kay jeex si kaw ay conditions moom nay jël ci xaalis mais man moom du ma maa ngi ñëw di ko jox moom na ko jël si. ba tey dégg nga ba tey. waaw loolu du problème man nag nay nay jël si xaalis. déet duur araam. Hmm. xaraam duur yow deel andi xaalis bi ma koy capté yow moom duur moom séqu leen ay jëli moom dégg nga c'est tout léegi nag wasalaam. noonu la ñuy teg man yaay dafa ma jaaxal chaque jour ak ak loi yu bees nee nañ dëkkee fii gis nga boo nee chaque jour da ngay wax da ngay nekk ku bari wax wala ku bari histoire. kon ni ngeen ma def ci kër gi lu ko neex. man xam nga la laa seek ak moom xëy salaamaaleykum fin du mois bu jotee ma fay ko sama xaalis tam sama yoon damay gis ne pat. <laughs> noonu de laa fi dëkkee. ngeen mën a muñ muñ ma ko muñ ba jaaxle naa mooy loolu de. Hmm. bi sax xaw a tëj. xam nga la am envie. Hmm? nga jóg sées bi may ma toog. ah mu wax may ma ko yow man ngay waxal man mi ngay waxal man. xool nga ma kaw ba suuf. xool la gis la ma ñëw soxla sées bi moo tax ma wax la ko. Ousseyn nga nag yaa ngi laal laal la ki man di rànke bu ne faaj toog fees dell palaas man nga naan maa jub sees yow nga toog. man may osé xaw man may xale osé pare coupable capable te féroce. ak yow suñu wax sax du bëri parce que amul lu may wax ak yow fenn Ndiaye yow Ndiaye yow. yow kaay fii. eh neex a dëkk. nay xam ha ça va bien alhamdulilah waaw hmm. ya rek ay yow jàppal di toog da yow lay xaar jogal jogal mané la ki bu bëggé tok da ngay ni jog mu tok yow Ndiaye xam nga sa bop xam sama bop tax ma taxaw nii xamoo sa bopp waaw waaw damaa bëgg nga jóg CSP mané won ñaata pour man ma jóg ah. man ngay jógloo siis man la jógal siis bi nga mel lu fi teg daw ni jógal waay. man nga waxal laay waxal. ah jógal ah yooyu na yaay dem ah, ah ah xaar xaar bu toog bu toog. waaw ah, nga ñoom dañuy kii te bëgguma seen affaire yi laal toog toogal eh, eh, eh. bu baax ñëwal tegal tegal fii. tegal fii. jaru ko sama instant bi nii sama xol dafa sedd. ah nga ni. dafa sedd. kon ma ne la. baaxool yaa ngi féex yow. kii kii kii kii baaxool yaa ngi féex yow.